بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد الحمد لله bi azra من honoré amiin barke borom tubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi santaat borom Touba bu wér di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér gi wér le tey ñu ngi fii ci jumaay tubaa ñëwoon ci liggéey bu kawe bu tedd bii nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma dañ koy def fii ci jumaay Touba daayira Muxaddamatul ma nag di benn banqaas boo xam ne dafa nekk Louga ak li ko wër ak mboolem section yi nga xam ne am na ko ci biir ñëpp àndandoo dajandoo ñëw fi tey ci jumaa ji ci suba lañ fi ñëwoon euh, ñenn ñi dem ca wàllu kafe ga ñenn ñi nekk ca raxas kaas yi ñenn ñi nekk ca wàllu mburuma ak bépp liggéey bi ñu fi def. nga xam ne diiru weeru yàlla li ngeen gis ñu def ko tey bés bu yàlla sàkk dañ koy def fii ci jumaa ji te daayira Moukhaddamatoul ma di ko taxawee di ko taxawalal lislaam bi waaye mboolem mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi euh, di ñëw fii di fi ndogoo muy ay ndogo yoo xam ne yu waajal la. ci euh, euh, liggéey bu kawe kawe te sell euh, banqaas bi nag ñëwoon fi tey fekk si suñuy jëwrin waaye fekk si suñuy kilifa di jiital ci ziar bi sëriñ Afia Bousso di ko ñaanal bu yàgg fi lool te ànd ak wér-wérle ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk suñuy gannaaw te yor liggéey bi nga xam ne tey koo xam ne ñëw nga fii diir weer weeru soxol day sedd guy ci liggéey bi rafet gi mu rafet waaye di joxe ndog yi bàyyi koog jaamu yàlla yi nga xam ne Euh, kenn ci ñoom du toog di ndugg di ndogu euh, te ñi ñi ñëw ci euh, jumaa ji ñëw di ndogu ñu ba noppi muy liggéey bu rafet te sell wax dëgg yàlla moo waral at bu jot dañuy waajal suñu addiya andi ko fii def ko ci liggéey bii nga xam ne mooy ndog yi ñuy def fii ci jumaay Touba moo waral daayira mu xadama xidma waajal lu toll ci téeméeri junni indi ko ci def ko ci liggéey bi nañ ko waxee woon rek bu doon téeméeri milliards noonu lañ ko fa yéene def ndax amuñu benn yëngu bu ñu amuñu beneen yitte bul jumaa ji mbooloo mi ngeen gis ni seen yëngu ak seen dal ak seen lépp jumaa ji képp la mooy seen yëngu mooy seen amuñu bis bu ñuy def amuñu lenn lu ñuy waajal lu dul lu ñu am andi ko fii ci jumaa ji ñoom ñu am qualité gu kawe ba tax ñu ñu ñu yaatal liggéey bi ci képp koo xam ne ñu ngi seq ak moom wala képp koo xam ne mu ngi dégg kàddu yi mu xam ne lu ñu jox ñun daan ko andi fii te noonu it la demee. Euh, ba tax na kon euh, euh, jotaay bi gën naa yaatu tamit fukki daayira ak ñaar yi nga xam ne dañuy ñëw fii tamit di fi liggéey si jumaa ji boolewaat àndaat daayira bu ci nekk am lu mu waajal lu toll ci juróom-ñetti daayira am lu ñu waajal andi ko tamit tàbbal ko ci liggéey bi mu toll ci tamit téeméeri junni ak juróom-benn fukk muy xidmatu rawda fathul xafaar xidma eaux et Lamp Fall sécurité Safinati amaan matul Moukhaddamatoul Khidma Dakar ak Khidma propre ñooñu ñoo waajal ak Moukhaddamatoul Khidma bu Louga ñooñu ñoo waajal euh, euh, addi ji ñoom it waajal ko mu toll ci téeméeri junne ak juróom-benn fukk andi ko fii tàbbal ko ci liggéey bi. di wax ne euh, xam ngeen ne fukki fan ak juróom-ñeent ñi koy taxawee ci liggéey bi toll nii ba tey daanaka rek mën nañ ne mën naa wéy waaye mun a ñàkk rek nu ñu mën a def rek ñu ñëw rek ànd ak ñoom ci liggéey bi waaw ñu ngi ciy sant bu baax a baax baax a baax li borom ne damay seenu gan moo bëgg ngeen teeru ko teral ko ku def tànk warul na la àjjana kon fii ku ñoo xam ne euh, gan gi teeru nañ ko teral ko di santaat bu baax di ñaan ku tedd ki sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér wér le ñu ngi ziaraat bu baax sëñ fallu Mbacké ak mboolem kilifa yi nekk ci jotaay bi a'uudu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin barke borom Tuba mbokki jullit yi mbokki taalibe ak mbooleem kuy seetaan télé bi nga xamante ne mooy télé Muxaddamatul Xidma nekk fii ci jumaay Touba ñoo ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanalit Serigne Cheikh Modou Mbend yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barke borom Touba di nuyu suñu kilifa yi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal nekk fii ci jumaa ji muy daayira Muxaddamatul Xidma ci njiital ci nji euh, ci njiital ci njiital Serigne Afia Bousso comme euh, euh, comme ni ko Serigne Khadim waxee rek ñun moom ay ndaw lañ suñu lépp dañ ko jël jooyal ko ci jumaay Touba suñu xitma suñu dal ak suñu yëngu lépp jumaay Touba la nga xamante ne lii nga xamante ne daayira mu xaddimatul xidma mi ngi koy def fii ci jumaay Touba ci ndigalu ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha di def ndogu yoo xamante ne li fi li fi ñëw di ndogu rek ci doomu ci rek foo takk lim bi rek weesu na ko te yàlla suñ borom moo ne képp ku dogal ab jullit yàlla suñ borom dana la ci fay fay gu fay gu kawe waxuma laa nag lii waxuma laa nag lii nga xamante ne ñoom ñoo fi ndogoo nga xamante ne nga xamante ne suñu yaakaar Cheikhul Khadim ba nga xamante ne ma ngi woon ca tukki ba nekk na foo xamante ne woor na ba ngoon amul sax lu mu dogee kooram mu jël mu jël mu jël li nga xamante ne moom mooy moom mooy xobu garab tucc tuccal ko ngir mën a ngir mën a ngir mën a dog waaye tey ndogom loolu tey lii fay na ko lii fay na ko ndax boo xoolee fii ci jumaay Tuubaa ak mboolem fuy barabu Serigne Touba rek euh, euh, xoolal taxawaay bi nga xamante ne njabootu Serigne Touba gi nga koy def lii nag moo lii nag moo waral mboolem daayira bi nga xamante ne ñi ngi ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu sell bii ci liggéey bu tedd bii nga xamante ne ñun la war. moo tax daayira yi nga xam ñoo ànd ak daayira muxaddamatul xidma di daayira fatxul xafaar daayira xidma rawdu daayira xidma bu Louga daayira xidma bu Dakar daayira xidma propre bu nekk Masalikul Jinaan eaux et forêts ñoom mbokki taalibe yëpp dajale seeni ñax xam nañ ne loolu liñ ci liñ ci liñ ci indi asaka la loolu dañ ko dañ ko dañ koo def rek tàmbalee ko waaye waaye ñi ngi ñaan sëriñ bi nga xamante ne moom moo tax ñuy def yàlla nañu sëñ Tuubaa dooleel ba bu ñu gis lenn lu muy sëñ Tuubaa lépp loo xamante ne am nañ ko nañ ko nañ ko def ci nañ nañ ko def ci ndogu nañ ko nañ ko ànd ak suñu kilifa yi nga xamante ne moom mooy waa daayira Muxaddamatul Xidma di leen ñaanal tawfiix di leen ñaanal wér di leen ñaanal salaam di ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla suñu borom yàggal ko fi lool tam wér di ñaanalit sëriñ Afia Buso yàlla suñu borom yàggal ko fi tam wér ak mbooleem kilifa yi nga xamante ne ñoom la ñu bokkandool toog ku mel ne sëriñ Mbàkke sëñ Fàllu Mbàkke ak ñoom sëñ Abdoulahat ñëpp ñu ñaan suñu borom yàggal leen fi te leen ñu yàgg ñu woo ñu yàgg leen wuyu ci barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf bismillah alhamdulillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk julliti mbokk taalibe ñu ngi leen di nuyu képp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ Afia Bousso di jëwriñu liggéey bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ Fallou Mbacke Touba mu tegal ma ko mbooloom sang yi nekk sunu kanam ak sunu gannaaw yëpp di ñaanal xalifatul am di mu di sëriñ Muntaxa Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ba naal gi mu naal la sëriñ Touba yàlla na ko yegg ak sagoom ba noonu lañ ciy tegaatee sëñ am ni Modou Mbend Fall di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba naal gi mu naalal maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko yegg ak sagoom ba naal yeneen naal di santaat yàlla bu baax. julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat daayira bii di Muxaddamaatul Xidma ci liggéey bu kawe bi liggéey bu sell bi ak liggéey bu set bi nga xam ne dañ koo liggéeyal Serigne Touba ba àdduna bi yëpp ci seen bët muy ndog yi nga xam ne dañ koy def saasu ne ci ndigalu sëñ Muntaxa Mbàkke di ko defal jullitu yàlla yi mbooloom jullitu yàlla yi dëkk ci dëkk yi fasantikoo yi ñëw di ndogoo fii ci pàkk bu sell bii di Touba. Muxaddamaatul ma am ci taxawaay bu mat sëkk ci njàngu alxuraan ak mbooloom bayaan yi ñuy def ci biir jumaa ji ak mbooloom xeetu xéewal yi nga xam ne euh, mbokk taalibe yi ak jullit dinañ ko dinañ ko dogoo ak mbooloom dal gi di ñaan yàlla sunu borom defal leen lu kawe seen njort liggéey bii nag doon liggéeyu sëriñ sëriñ tuwaa te sëriñ Tuubaa kat ay ñooñam moo koy tànnal boppam ñu xam ne ci ndimbalu sëriñ Tuubaa de la ñu duggee ci ci liggéey bii bokk kook mu xaddumaatul xidma di fukki daayira ak ñaar fukki daayira ak ñaar yooyu ñoo dajale seeni xewal gis liggéey bii nga xam ni dañ koo bokk ak mu xaddumaatul xidma di li ko liggéey ci jumaay Tuubaa ñu ne nañ ci sof suñu jëf ndax liggéey bi kat ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem bëri googu ñu teg ci mbartal la looloo waral fukki daayira ak ñaar yooyu di fédération ci euh, mu euh, xaddumaatul xidma di ay section ñoo dajale seeni xewal xewal gi toll ci un million deux cent vingt mille fase na koo jëbbal muxaddamaatul xitma ñu sof ko ci jëf jooju nga xam ni Serigne Touba nangul ñu ko du ñaan yàlla sunu borom sunu borom nangul ñu ko Serigne Touba nangul ñu ko liggéey bi nag euh, dañuy santaat yàlla bu baax rek ndax képp ku ci jëf rek xam ne tànneef sunu borom nga Serigne Touba kat liggéeyam bi ci loxo yi set la ko teg te ku ne xam nga ni jumaa ji maanaam ku fi Serigne Touba teg Serigne Touba la tànn ci ësël ndax lii ñoom buñ ko taxawul woon. fépp fu murit nekk ci àdduna di nga ñëw taxawu ko ndokk yàlla tamit bi ñu amee ñoo xam ne ñu ko taxawul moo tax lépp lu ñu leen sant doyul ndax lii murit yëpp la waroon ndax li ñuy def fii ci jumaa yi mbooloom dégâts matériel bu fi nekk ñoo koy saytu mbooloom lu fiy dugg ñoo koy saytu mbooloom doomu aadama bu fi ñëw ak ñaaw téefam wala ñëw xalaatam bu bon wala ñëw bëggoon pexe ci yoonu murit seen kaw ngee dal te balaa ngaa dal ci sëriñ bi di dal seen kaw jàll kon lii ñun ñëpp la waroon kon di leen ñaanal suñu borom yokk seeni fan ba li ngeen bëgg ci liggéey sëriñ bi ni ko sëriñ bi bëgg yàlla ngeen ko defee noonu di daanal kàddu yi rek euh, di di daanal kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di delloo nuyoo ba gën a tedd di leen ndokkeel itam ci weer wu tedd bi ñu nekk ak barab bu tedd bi ñu toog tey jii di amaan mbégte itam di leen dalalaat ci liggéey bu tedd bi nga xam ne dañ ko bokk ak yéen muy loo xam ne Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom liggéey bi moo nu ko boole ñu ànd ko àndin wu rafet diiru ba nga xamante ne ñu ngi ànd liggéey ba léegi gis nañ ne lépp luñ mës a yëkkati rek yéen ñëpp maase ngeen jàpp ci li ñu ci gën a neex nag mooy nii ngeen def jël mbooloo yëpp boole ko ci benn fédération bu tudd mu xadimatul ma ngir ñi liggéey li liggéey mboolem ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci biir jumaa ji di jàpp ci liggéey bi rek ak fuñ mën di jógee ñu nekk Ndakaaru ñu nekk Louga ñu nekk feneen fu mu mën doon rek ñëpp nekk wenn say loolu dafa nekk lu am solo lool ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam dafa ñaanoon suñu borom mu booleel ko murid yëpp waxoon ne yaa rabbi jaalil muridina maa fi xisnika alxasini wa shamlaj maa suñu borom Euh, wër leen rondom ba daj dar leen kapp ba nga xam ne dara du mën a egsi ñoom aar leen nekk seen tata ba noppi nag mu boole leet ñoom ba lépp luñ song man koo daan kon nii ngeen def bu ngeen ko defee day wane ne la Sëñ Tuubaa ñaanoon garanti ba Sëñ Tuubaa ñaanoon ñu defal ko ci murit yi àndandoo bii mooy tax mu yomb mooy tax mu am moo tax mu jiital sax kaaraange gi ci àndandoo bi ndax bu àndandoo bi amul bu àndandoo bi amul kaaraange gi du mën a am. kon nag ba ngeen ko defee nii ngeen ko defee loolu des ci sant bu baax a baax a baax di leen ci gërëm bu baax di leen ci gën a soññ it nag di wax ne lii rek mooy mbir mi Sëñ Tuubaa dafa bëggoon murid yëpp nekk benn ñëpp ànd ñëpp di yëkkateetoo ñekk di tegandoo ay tur mënta ñàkk ci woote waaye liggéey bi moom benn la noonu nag la sëñ bi defee mbir bi dafa mel ne rek xaside xaside goo ci jàpp rek mën na laa yóbbu fa nga bëgg a àgg waaye dañuy ba ñu boole yëpp ne xasaayit Sëñ Tuubaa yi rek xasaayit Sëñ Tuubaa mën naa yóbbu ku ne fu moom sax buy ñaan du ñaan ne defal xasida sangam wala nangam nangam waaye day ñaan ci suñ borom def xasidaam yi rek mu wóotu sëriñu tarbiya feneen mu ñaan mu wóotu sëriñu tarxiya feneen mu ñaan mu feneen mu ñaan mu ñaan ba àgg cax di wax ne xasaayid yi faaxat xasaayidal kiram lool lépp nag dañ ci misaal da ciy misaal rek murid yi ne noonu lañ war a mel noonu lañ war a ànde noonu lañ war a ok dégg nañ Cheikh Abdou Lahad wax ne boolaa bu ne lañ seq loolu mooy seen àdduna bala ñu ko mën a jariñoo wala ñu mën caa jariñoo rek dañ koo takk ne aw say ba fuñ ne ko cirib buntu feeñ loolu nag mooy lii ngeen def tey jii mooy ñëpp àndandoo xam ne ñoo bokk benn jubluwaay ñoo bokk genn bëgg ñoo bokk lenn lu ñuy wut ñëpp ñu àndandoo nekk benn boo defee lu ñu rek dañ koy mën a daan kon nag ñu ngi leen di euh, sant bu baax ci lii ngeen def addi ji na solo lool rafet na lool baax na lool waaye nii ngeen def nag gën nañu cee neex lool lool lool lool lool lool kon nag ñu ngi leen ci gën a soññ bu baax di leen ko gën a dëgëral di leen wax ne bu ngeen defee nii ngeen def àndandoo takk wenn say day lépp lu ngeen jéem rek dangeen ko man te lépp lu ngeen song da ngeen ko daan te lu leen songit da ngeen ko daan loolu nag kon am na solo lool ñu jiital ko ci di leen sant nag ci jëf ji ngeen jëfati ci liggéey bi te duñ ne guleet duñ ne guleet lépp lu ñu mas a song ci liggéey bi rek nii ngeen ko defee bu dara xewut sax yéen a ngi xool lu fi war am ak nu ngeen ci war a taxawee waxtu wu ne yi ngeen ngi jokkoo lan moo fi yitte luñ ci war a taxawee loolu nag day wane yitte ji jox barab bi wane yitte ji ngeen jox liggéeyu sëriñ Tuubaa bi waaye sëriñ Tuubaa nag li wolof di wax naan nangam kenn du ko jam naa ni waaye sëriñ kenn du ko jam naa ni lépp lu waay def ci moom na la wóor ne balu balu balu balu balu balu balu texte yi ngay sànni ci ci miir rek la moom mu rek noonu lay delsee la nga gën a fonk boo ko joxee mu delloo la la la nga gën la nga gën a fonk ba defal la ci sax lu la jomb suñu Abdou Lahad dafa waxoon ne soo ko defalee loo man mu defal la loo mënut soo ko defalee loo mënut mu defal la lu la jomb yéen gis nañ waxtu wu ne yéemu leen ci li ngeen man waaye yéen ngi def bay def lu ngeen mënut ci sëñ bi kon nag na leen wóor ne sëñ bi dana def ci yéen ba def ci yéen loo xam ne jàpp ngeen ne jomb na leen leen nag ndax yéen a liggéeyal sëñ bi moo tax sëñ bi jafal ko waaye waxin la la mooy jomb képp ku ngeen euh, ci ci àdduna li ngeen am ci sëñ bi kon nag na seen xel dal na seen njort rafet seen yaakaar na dolli ko te xam ne sëñ Tuubaa moom yàlla xëyewul kennam gontoo ko yàlla xëyewul kennam gontoo sëñ Tuubaa li mu ko defal waxoon na ne benn loxoom bu boobu am na barke démb rek maa ngi dégg kilifa ku mag di ko nettali ni bi muy demee bay waaja a jógee gànnaar dafa am taalibam naaram bu mag boo xam ne yëg na ni mi ngi waaj ñibbisi mu ñëw ci moom jooy sëriñ bi laaj ko ne ko loo jëm mu ko damaa yëg ne yaa ngi waaj a dem te man xam naa ne mag laa mag ku faatu mu faatu ku faatu mu faatu te su ma sañoon yaa may dugal ci biir bàmmeel sëñ bi ko fompal say rongoñ loolu jeex na daanaka xanaa xamoo ne loxo su ndaw si li muy tuuti tuuti bu murid yi nekk ci àdduna bépp buñ fàttandoo woon wenn waxtu suñu borom may na ko kattanu mu nangoo doo leen dugal doo ci biir bàmmeel ka man loolee nag te jàkkaarloog boromam wax ko lim ko wax ci ku koy liggéeyal yaakaar naa ne ñaar rek doy na ci wala ñett. benn bi mooy fa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara képp ku may liggéeyal nanga ko musal te na nga ko jéggal ay bakkaaram yaakaar naa wuti sut ci àdduna lu ëpp mucc wu seetu wutee sut ci àllaaxira lu ëpp njéggal beneen bi ci des mu wax ne inna allazina saara'u li xidmati fa lahum diyaar wasal na ñi nga xam ne ñoo may liggéeyal sunu borom tabax na leen ay njënd ay kër ci digg aljanna beneen bi ci des mu ne waqdi xawaaija allazina daamu fii xidmati wa hab lahum maaraamu na faj aajo yi képp koo xam ne ñëpp ñi nga xam ne dañoo sax ci dima ma liggéeyal te lépp luñ mën a bëgg lu mën a doon nanga leen ko defal loolu nag yaakaar naa aajo ju faju tabbe aljana njëgalu àdduna njëgalu njëgalu ko bakkaar mucc ci pexe yi àdduna yaakaar naa ne kenn wutul lu ëpp loolu te yooyu yëpp nag mi ngi ci biir liggéeyal Serigne Touba ak yeneen nag yoo xam ne keneen yoo xam ne yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba rek a xam te moom nag dafa wax ne xazainu rabbi futihat li wa sahsahat li xayril aza dunya wa uxra wa barsaxu mboolem magasin yi nga xam ne suñu borom am na ko yëpp jox na ko caabi ji lu ko ci neex mu ubbi lu ko ci neex mu jël lu ko ci neex mu defal ko koo neex loolu suñ borom jagleel na ko ko kon nag lépp lu waay def ci moom rek nanga xam ne maanaam dafay mel ne da nga jël sa kookus ndox sotti ko ci géej kookus nga yox nga yoroon soo maroon boo ko galax di ko mu jeex soo ko sël moo mu jeex loo ko def mu jeex nga sotti ko ci géej bokk bokk ngaa géej ndox mi ba noppi te ngay léegi da ngay sangu di fóot di di di di di di di di di naan di def lépp loo soxla ci ndox mi te waxtu bu nekk yaa ngi am ndox ndax da ngaa associé ku du jeexal kon lépp looy am boo bëggee mu sakkan te barkeel dang nga boole def def ko ci Serigne Touba mooy nii ngeen def yéen nag liñ mën a seere ñun ñi nga xam ne ñun ngeen nekkal fii mooy di ne yi am solo yëpp jaxase ngeen ko ci loolu Serigne Touba seen am-am seen kattan seen euh, alal seen doole seenum xel seeni xalaat seen xam-xam lépp delloo ngeen ko Serigne Touba kon nag na ngeen di xam ne Serigne Touba dana leen ko téyel te dana leen ci defal lu kawe seen jot ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di santuwaat ñëpp ñëpp na ngeen di déwén di leen gën a soññiwaat nag ci àndandoo bii nan bokk rek àndandoo. ba teere ci kanam Serigne Touba am ngërëmul Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد